et ça doit dafa war a arrêter ils ont fait beaucoup de mal beaucoup beaucoup te loolu dañ ko war a arrêter dafa war a jeex ci Sénégal li ñëpp bokk comme ni ko Ousmane ko daan waxee ñëpp jot ci te ñun askanu Sénégal ñun ñoo pare pour dund lu ni mel ñun ñoo pare pour ñu delloo ñu lu ñu moom parce que ñun ñoo daw ba xoox dañoo demoon bay mbëkk miir bi. yàlla may ñu nag fekki ak talu alternance am nguur gu bees toog Sénégalais yi gis ci jàmm dégg ci jàmm kon kooku du tey jii lañ ñuy noppiloo ñuy noppi du tey jii lañuy xupp ñuy toog du tey la am lu ñuy tiit ci seen kanam wala ñuy ragal parce que ba mu méttee ba métti dañoo jàkkaarloo woon ak ñoom te ñoom seen seen gént nag naxu seen gént naxu leen de xamoon nañ ne tôt ou tard jaan ak euh, euh, tànk ci kaw suuf yàgg-yàgg daje ki la ragalul ba nga yoree la mu dof bi ba nga yoree loxo dof bi di dóor muy dal ki la wu ci jamono jooju bis boo ñàkkee doole du moo lay ragal moo tax xupp yeeg menace yeeg yóbbu sunu tur yeeg loolu lépp mën ngeen a arrêté parce ba muy metti dañoo taxaw te bañuñu ci dara daw ñu ci dara toog di xaar na lépp leer parce que ñun ñoo ne dañuy sumb ci ab xeex boo xam ne danoo bëgg mu am continuité mais ñoom dañ fi jóge à quatre mois ñu bëgg leen a may ñu naan ndox mu sedd dem géexi déedéet da ngeen di gox dañuy wax ba sonn rek bu ñu waxee deux heures de temps trois heures de temps lal li ba beneen ñu lalaat waxaat trois heures de temps deux de temps parce que loolu lañ ci mën toog éveiller gën a éveiller conscience su population bi gën a waxtaan ak ñoom gën leen a jegele ak information yi ñu gën a xam ñan ñooy ñam yéen ñam ñan commission yi day dakk jàppal ma fii ma jàppal la fii am jaayal ma jox la ci nàngam day dakk dafay dakk yéen ñi doon enrichir ci loolu doon bénéficier wu ci euh, ci ci njàppandalu gouvernement dóor ngeen seen loxo ci ëkk parce que nag ñun askan wi ñun ñoo soxla parce que nag ñun askan wi ci boppam ñun ñoo ne bëgg nañu kat changement bi nga xam ne moom lañu ñu jëmale te ñun nee naa la ñun suñu xar kanam mooy refléter ñun fi ñu bëgg ñu jëm fa ak ñoom ma ne ko ñun ñooy refléter ñun fi ñu bëgg ñu jëm fa ak ñoom donc ak lum ci mënti doon na sénégalais yi toog di am les informations qu'il faut moo tax ma ni ñi war di informer les sénégalais juste et nañuy génn di wax bañ may place ñi nga xam ne dañuy rek désinformer dañuy wax lu amut lu teguwut li ñu nekk chaque jour moom mooy di jéem a jàppal tànk lu jàppaluwul tànk di jéema wan wu Sénégal ne leen safoo leen ñu bëgguñu leen te alors que askanu Sénégal fii ku fa am doole ñoo la may doole ñun ñoo fi jëlee président Macky Sall waaye ñoo ko fi jëlee ñoo ko yenu ba biir bi weex ñu ne ko rëdd ci suuf ñoo jàkkaarloog Macky Sall ak dooleem ak lu mu mënti woon àndal jamono jooju ñu ne ko on a besoin du changement te changement boobu lañu am tey par force mu neex mu naqari changement boobu nag dañu koy gën a bërël parce que li ñu bëgg ñun li ñu bëgg ñun moom la ñuy wane te xar kanam yi li ñu bëgg ci suñu xar kanam loolu lañuy ñuy wane kon amul daw amul daay la famille gaaw leen woote au 77 520 88 80 ngeen joxe seen impression par rapport ak li ñuy waxtaane parce que man lu ko temps bi xat xat xat bëgg naa su ma waxee ba pare parce que man rek moomu ma amuma xalaat man rek mënuma waruma mën a xam yenn yi di ko wax am na ci askan wi ñu bari bari bari ñoo xam ne li ma xam xam nañ lu ko raw dama bëgg nag ñu koy partagé ku ne li nga xam nga copp jox sa morom la mu xam ñu boole ñun ñépp ñu xamandoo ndax kenn baña ci ñoo nax te loolu lu mën a nekk la ñun ñoo sonn yow ñun ñoo tàyyi ñun ñoo ne dañoo bëgg à chaque fois ñu ñuy yor ci lu neex donc ñun ñooñu ah salaamaaleykum waaw xaaral may ma may ma ma ma wàcce def la haut-parleur donc dafa am ku doon woote xaaral ma wàcce rek def la haut-parleur ziyaar naa la bu wér a wér wér le grand journaliste l'éminent Ismaïla Seck billaay maa la raw maa la raw si mbokk internet am nañ mbégte lool lool lool lool tey di macha allah ñun ñoo la ëpp mbégte bu baax a baax a baax a baax di la jéggalu encore une fois ndax euh, waaw yi fi xew lépp lépp lépp <laughs> oh masta masta. waaw dama commencé déglu live bi gis fi nga tàmbalee muy aide à la presse bi. te nga am ci te nga am ci baat en tant que journaliste. parce que tey ci crise bi xam ne am tey ci secteur de la presse bi yaakaar naa ne képp koo xamante ne rek soxal. tey mu mu am ay jàngat yu bëri yoo xamante ne mën nañ ko ci def mooy euh, bëri na nit yoo xamante dañ leen ci ay nit la ñoo xamante ne nii ñu ñàkk ngor lañu mhm. parce que ñàkk ngor mënta weesu nag nga taxaw ci digg askanu Sénégal nga ni nangam nga doon ci aide à la presse bi loolu am wéccat la woon jariñu la dara bi xamante ne kilifa ji tëral na liste bi li ñu ci gis ak la nga doon wax mu safaanoo kon loolu dafay wane ne rek yow amoo kàddu Mm-hmm. beneen bi mooy c'est une réponse boo xamante ni jox nañ ko askanu Sénégal ci lan moo tax depuis deux mille ba léegi ba askanu Sénégal di xeex di génn ci mbedd bi di reyante ak police bu Macky Sall détourner le regard journaux yi le regard rajo yi détourner le regard lan moo ko waroon c'était parce que tout simplement y avait une alimentaire boo xamante ne nii ñoom ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo amoon audience bu mag bi Macky Sall daf leen doon euh, daf leen doon duural seen i poche moo tax ñoom ñu détourner woon le regard ci li nga xam ne ñoom la askanu Sénégal doon dund. Mm-hmm. loolu c'est c'est c'est une autre réponse beneen bi tamit mooy. Euh, tey li nga xam te moom mooy problème bi nga xam te moo dox le principal problème entre du Sénégal ak la presse muy dette fiscale bi nga xam te am na ci diggante presse ak euh, état bi. si mm-hmm. situation dafay ñoom mënoo ñëw nga yoreel ma junni ba pare naan ma naa la may ñaar fukk te c'est dans la presse dañu ko war a supprimer ba li nga xam te moo di presse bi nangu nañu nekk une presse normale boo xamante ni ci euh, méngoo nañu ak charte moom la ñu war a teg yëpp te euh, def nañ boo xamante ni c'est pour recenser tey médias yi nekk biir Sénégal xool ndax sàmmoon nañ ak yoon am déet parce que loolu dafa war mais mm-hmm. tamit euh, war nañu àggale xeex bi parce que li nga xamante ni mooy plus de on parle de plus de huit presque un milliard yoo xamante nii ñeneen à la presse bi la dugg te xamuñu fan la jaar xamuñu yan organe ñoo ko bénéficié wu je pense que waruñu yem rek ci déclarer chiffre bi wax joxe information bi mais war nañu wax askanu Sénégal carrément huit cent milliards yi huit cent millions yooyu na lu dugg ak ñi xam te ñoom ñoo nekkoon a responsable ci jamono jooju noonu ñoo géré woon son son boobu ñu dem génn xaalis boobu noonu tegaat ko sur la table gis nga aide à la aide à la presse bi gis nga seen seen média yi nga xamante ni ñooy média yu am doole nekk Sénégal mérite wuñu sax aide la presse parce que aide la presse mooy suñu a doon nga nekk liggéeykat ñuy ponctionné ko di presse bi def nag askan bi taxu ko fee toog askan bi nekkalu leen fi mérite wuñu ñu jël xaalis boobu noonu ci ñuy ju doole di ko dajale ba mu bëri joxaat leen ko xam nga ñun ñoo méngoo ñun ñoo à la presse dëgg dëgg dëgg bu ñu ko dee wax tey Sénégal. Mhm. damay gis nag euh, benn amalgame ci suñu yenn naataango journaliste yi tey ñuy def ay vidéo bi kaañoo yi ci yenn organisme demee ñu rajo communautaire. Mhm. gis nga rajo communautaire yooyu noonu liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def tey en terme d' information et de communication au Sénégal média yu mag yi nekk ci biir Sénégal defuñu ko. Mm. soo demee ci gox goxaan nga dem ci village yi lépp loo xam te am nañ ko ci information euh, mu soxal ne directement war a jóge ci nguur war a jóge ci yenn service xam te ñoom ñoo di bi rajo communautaire yooyu information yi donc c'est des vrais médias yoo xamante ni ñoom que liggéey te ñoom def léegi que média yu nekkee di a chantage nguur di jéem a xool naka la ñuy def ba ak gën a taxawal seen dëgëraay alors que journalistes yi nga xam te ñoom ñoo leen di liggéey ñu ci dans des situations yoo xam ne yu la ñuy doon encore une fois cela révèle tey jii nii li xam te moo nekk taxawaay journaliste yi biir Sénégal ñu ci bëri bëri xamuñu sax lan moo war a nekk seen taxawaay parce que xeex bi nga xam te ni moo dox ci diggante nguur gi ak euh, les patrons de presse concerné wu leen ñoom journalistes yi ça ne mm-hmm. leen concerné mooy. bien gis na ñaata journaliste ñooy liggéey amuñu contrat ñaata journaliste ñooy liggéey amuñu couverture euh, maladie ñaata journaliste ñooy liggéey te ñu euh, reversé wuñu seen i seen i droit à l'IPRES wala ñu ñu retraité ñu am euh, li nga xam te moom moo nekk seen pension am ay retraite loolu war a nekk seen seen seen combat tey bi ci jamono ji nga xamante bu ñu gisee ni ñoom organes yi nga xam te ñu ngi fay liggéeyam on a injecté des milliards ci organes yooyu noonu pour jàppale leen ko alors que ñoom ko ci seen i employés état dafa war a contrôler xaalis bi nga xam ci daf koy subventionné ku mu nekk presse ak mu nekk beneen organe bu mu mën a doon booy subventionné doo ñëw rek nga jox ko da ngay subventionné pour des euh, xaalis bi moom injecté ko na ko foofu noonu wala dafa jël xaalis bi def ko ci compte personnel am dem takk ci ay jabar wala dem def ci lu ko neex ak yooyu noonu état daf ko war a contrôler parce que gis nga ONG bi même yenn kuréel yu mag yi bu ñuy financé Sénégal dañuy toppaat ci ginnaaw xool ndax li xam te moo tax ñu financé ko ko ci ay yoon ak yoonam ndax foofu lañ ko def wala defuñu ko foofu loolu donc état noonu la war di doxee. beneen bi tamit ma dama dama ciy insisté waat bu baax a baax mooy l' apport de ces rajo communautaires là parce que bi may def sama master maa ngi def sama mémoire sur les rajo communautaires à l'ère du numérique loolu moo nekkoon sama sujet mémoire. Mm-hmm. ma lire lu bëri bëri bëri bëri def ay enquêtes yu bëri bëri ci li nga xam ci moom moo nekk tey l' apport des rajo communautaires par rapport ak ñoom jeunes yi xam ne foofu la ñu nekk tey ji moom ay conflits yu ngand ak ngand yoo Mm-hmm. su ñu mujjee réglé problème yooyu noonu mooy de sur un plateau de rajo communautaire la ñu réglé yooyu les problèmes ay liggéey yu bëri bëri yu am am solo yoo xamante ni rajo communautaire bi dañ ko ci biir Sénégal pour yëpp nekk boo xamante état moom moo ko war a def te mu nekk des rajo yoo xamante amuñu du parce que c'est pas vocation commerciale amuñu donc ay contrat yoo xamante dañ koy am ak yenn sociétés yi pour mën a gagner xaalis donc état moom moo leen war a jàppale de ñuy jox presse bi ñoom dañu war a nekk prioritaire ci loolu noonu. Hmm. donc je pense que ni tey sama mbokku journaliste yi ñoom gis ñu di leen euh, xaw a xeer naan rajo communautaire lañ waru leen war nañu xoolaat bu baax baax li nga xam li nga xam ni hmm. ñoom ñoo jot xaalis bi tey yelloowuñu ko mooy ces patrons de presse yi xam te ils ont de ces massacres de Macky Sall diggante deux ba deux mille di exécuté population di rey jeunesse bi ñoo méngoowul ñoo ñoo yelloowul xam ci moom moo nekk aide à la presse noonu et je pense que ni euh, l' état doit aller jusqu'au bout de sa logique ñi xam te ne tey c' est des parce que loolu am na benn média yoo xamante ni c'est internet site internet boo xam ne mënoo ko recherche Google ba gis ko kooku xanaa existé hmm. rajo boo xamante ni mënoo ko recherche Google ba gis ko existé donc ces médias fictifs ñi xam te ñoom ñoo dem que euh, dal ci seen kaw parce que tout simplement c'est c'est une association de malfaiteurs Mm-hmm. ñi nga xam te ñoom ñoo nekk ci état bi ak ñi xam te ñoom ñoo nekk ci média yi te nag crise bi dafa profonde de telle sorte que fi mu toll nii média bu Sénégal xamuñu sax ndax dina dina dina dina dina renaître ci jafe-jafe yi xam te moom la nekk jamono jële te journalisme bi pëccëxoo na tey jii presque pëccëxoo na kenn xamul fan la mujj je pense que ni si on avait même le pouvoir de raser lépp def table rase commencé waat euh, à zéro xam te moom mooy le métier du journalisme au

donc xam naa ne du ma du ma guddal trop. Mhm. xam ne du ñàkk am internet yoo xam ci bëgg nañu bëgg nañu participer. macha allah sa intervention am na so